complexe Cheikh Ahmadul xadim di université bu Touba nekk projet xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñu fas yéene ci def lu toll ci 37 milliards de francs CFA Serigne bi nag jël mbooloo moo xam ne moo leen dëppee Jabaatul Mouridiya di ay boromi xam-xam ay techniciens ay ingénieurs nekk ay taalibey Mouride di ko jàppale ci décision yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci liggéey bi ñoom it ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne qualité la. ak entreprise yi nga xam ne ñooy liggéey ci université bi ndax ñu ngi respecté li nga xam ne moo di qualité bi. waaw bon en fait euh, Jamaatu Mouride Al Jaba vraiment euh, bon il joue un rôle important ci projet bi ndax euh, dañuy accompagner sëñ bi dans le suivi technique du projet des études jusqu'à la réalisation Euh, ce sont constitués de, de jeunes, de, de une commune, communauté mourite constituée d'intellectuels, de cadres qui investissent leur temps euh, pour amoon ngërëmal sëñ bi di ñëw di indi seen expertise ak seen expérience ci projet bi di accompagner ci sëñ bi dans le choix des décision bon di ko def euh, lépp di ko def ngir jëmmi sëñ bi waaw yaakaar naa euh, ci la leen sëñ bi tuddee. tur boobu al jabha front murit et là bon képp kuy ñëw ci sunu projet bi ni ñu koy piloté chaque fois di ngay gis euh, détermination bi ñu ciy àndal chaque samedi on fait des réunions de coordination tous les quinze jours ils son la ñu ci bari Dakar la nekk ñëw di ñu apporter dans le suivi technique projet bi bon def ko seen mbiri bopp. projet complexe Cheikh Ahmadoul Khadim seen objectif ci phase bu njëkk bi nekkoon na yenn bâtiment yi noppi. ngir ñu mën a démarrer li nga xam ne moo di njàng mi. mooy jëlee maanaam projet ba ñu koy démarrer objectif bu ñu amoon c'est-à-dire objectif bu ñu amoon mooy dans la première phase université bi opérationnelle c'est-à-dire euh, fexe ba telle sorte que l'institut coranique mooy li ñuy wax daara alxuraan ji opérationnel majalis bi opérationnel ak aussi administration bi la zone administration bi nga xamante ni mooy yore tout ce rectorat bibliothèque maanaam moo yore l' administration de l' université mu opérationnel ak aussi l' de des sciences islamiques bon objectif boobu lañu am dans un premier temps c' était sur trois ans la phase étude a dure une année et les travaux démarré na depuis bientôt 14 mois. liggéey bi nag mi ngi avancé bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne dénk nañ leen lenn ci liggéey bi moo xam Touba matériaux la Touba ca kanam Hizbut Tarqiyyah homme d'affaires yi ba ci Serigne Cheikh Hakim kenn ku ci nekk tàmbali na liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénk. sur ces différentes zones la dans l'institut coranique actuellement ni six bâtiments sont en cours muy euh, deux salles d'études deux résidences pour élèves ak deux résidences maîtres coraniques bon les quatre bâtiments sont au niveau du deuxième étage mooy les deux salles d'études yi ak. Euh, Euh, deux résidences élèves yi yu ñu gis sànq ñu nekk au niveau des fondations mooy résidence maître coranique yi donc euh, bon travaux yi mi ngi dem ca volet boobu noonu homme d'affaires yi ñoo ko yore bon euh, ca deadline bu ñu joxee durant la première phase dinañ terminer tout ce qui est travaux ci institut coranique bi pour mu mën a opérationnel boo jegee ci ba tey objectif yi nu fixé woon mooy majalis bi aussi dafa bokk ci objectif bi bon majalis bi euh, euh, trois batiment moo ko constitué woon un majalis grand modèle ak deux majalis petit model grand modèle bi ak petit modèle bi gros œuvre bi yëpp jeex na Touba matériaux moo koy def ñaar yooyu gros œuvre bi yëpp jeex na beneen bi ci topp beneen petit modèle bi Touba ci kanam ñoo ko yore te ils sont au niveau du deuxième étage ñoom it ils sont très avancés donc euh, batiment majalis yi moom pratiquement seconde œuvre bi moo ci des il nous reste au minimum euh, deux ans donc euh, am nañ yaakaar aussi foofu on sera dans les délais euh, beneen volet bi mooy l'institut des sciences islamiques et langue arabe foofu on a décidé de mettre en service au minimum trois grandes salles bon yàlla dogal na trois grandes salles d'études yëpp tout ce qui est gros œuvre aussi pare na et au niveau du second œuvre complexe bi bu weesoo bâtiment yi nga xam ne ci la jànge bâtiment administratif yi ñoom it liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax moo xam lu jëm ci rectorat bi bibliothèque bi këru xaside yi ba ci jumaa ji nga xam ne moom la Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Hakim doon liggéey. administration bi mooy bibliothèque bi euh, rectorat bi amphi yi mosquée bi ak euh, poste de santé yi bon sur ce volet là aussi on est très en avance euh, mosquée bi pare na groseur bi pare na. poste de santé bi gros œuvre parrain on est au niveau des finitions seconde œuvre rectorat bi comme on l'a vu tout à l'heure on on est au niveau du deuxième étage bibliothèque bi bon on est au niveau sous-sol fondation yi sori na beneen bibliothèque bi nga xamante ni euh, këru xaside yi excavation bi démarré na pour la rajo générale këru xaside yi waa Hizbut Tarqiyyah yi ñoo ko sasoo ñoom ñoo ko sasoo bon vraiment gis nañ ci ñoom tamit volonté ndax euh, excavation yi ils l'ont fait en temps record en di jours presque sur mille mètres carrés presque deux mille cinq cent mètres cubes d'excavation donc euh, on espère que ñoom it ils seront dans la même dynamique que les autres entreprises qui sont ici ainsi que waa Kër Cheikh Abdou Hakim nga xamante ni aussi ñoom ñoo yore mosquée bi yore poste de santé bi sëñ Cheikh Abdou Hakim ba mu paree travaux gros bi nga xamante ni moo jëm ci mosquée bi jëm ci euh, post de santé bi bon ci la laajaat ñu dolliwaat ko beneen restaurant ba implanté nañ ko bon sûrement dina ko démarrer euh, dans les meilleurs délais allah. ci liggéey bi am na fi benn batiment boo xam ne mooy bâtiment témoin ci la ñuy sukkandiku ci mbooleem li nga xam ne moom la ñu war a def ci université bi bâtiment témoin boobu sori na lool. te bâtiment bi bon comme tu l'as dit c'est un bâtiment témoin bâtiment mooy batiment boo xamante ne modèle la cest à bu paree. certains ñi nga xamante ni ñu bëgg a xam maam salle d'étude yi bu paree ni muy mel bu demee ci bâtiment témoin bi nañ xam ne peut-être ah, liggéey bi nii lay mel xam ni kat ni ah wax dëgg yàlla euh, ñu am ci benn idée bâtiment témoin bi sori nañ ci bon gis nañ ko sànq euh, grosseur bi jeex na euh, ñu ngi ci finition yi bon am nañ yaakaar bon d'ici au maximum deux mois dinañ ko mën a ubbi xëy na nit ñu ñëw di ko visiter. liggéey bi nag bàyyiwuñ ko noonu muy dem rek ndax am na ñoo xam ne ñoo koy saytu di ko contrôler ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci fànn gi nekk ay technicien boo xoolee fii nii euh, suivi bi c'est très structuré boo xoolee commission technique moo la waxoon mooy aljabha day euh, day day dafa bokk ci suivi bi il assure en premier lieu le suivi ñoom c'est sous cette bannière ci la CORED si ñëwee sous forme de mission d'assistance après la commission technique, il y a la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'œuvre, le bureau S4 qui font le suivi quotidien. Donc, euh, que, suivi technique, bi, nous mu demain comme un projet, nous nous demain, non le bi demain. Mais bii nag suivi de daanaka dafa am assistance l'AMO mooy COREX ñëw assister maître maître d'ouvrage bi dans le suivi du projet donc à la maîtrise d'œuvre bi nga xamante ni. Euh, mooy assurer mooy assurer contrôle bi il y a l'AEMO COREX ñëw jàppale ko ainsi que la commission technique donc c'est un c'est un suivi boo xamante ni qui se fait en amont daanaka man na euh, sama expérience daanaka projet projet bu ñu encadré de ce genre là bariwut nga xamante ni euh, ñi ko encadré y a d'œuvre am nga AEMO bi am nga commission technique bi bon sur la volet-là c'est bien encadré bon euh, maîtrise d'œuvre bi euh, y a aussi s moom mi nga xamante ni mu assuré tout ce qui est béton armé ñoom ñoo koy réceptionné béton armé bi dem ci université bi balaa coulage S4 il vient il assure que ni ferraillage yu baax na euh, réceptionné ñu doog ko dem am nañ aussi labo géotechnique boo xamante ni béton bi aussi buñ ko defaree. ils font des essais d'écrasement sur le béton def ci ay éprouvettes slam test bon tous les essais géotechniques que cela demande bon avant ñu réaliser béton bi donc euh, sur le volet suivi bon on est bien organisé bon les entreprises qui son sur place ils ont adopté notre structure bon képp ku fi ñëw bien que là certaines entreprises ce sont des bénévoles mais dañoo ñëw exposer euh, notre structure de contrôle. chantier complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee noonu lañ ko waxee a liggéeyee. loolee waa Jabhatul Muridiya ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax ndax ñu ngi amal ay réunion di saytu liggéey bi ngir mboolem entreprise yi nga xam ne ñoo fi nekk daañu ko def ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee.